mu daal di jàpp ni fu mu toll nii nag ki na xam nekk mooy le leader de Pastef euh, ginnaaw rek ba juste saba si si daal di euh, fana xam ni itam mooy zaanu que Ziguinchor ni bokkaat na si list électorale yi moom ki na xam nekk moo di DGE dafa ne fu mu toll nii day il y recours yi recours qui est état dans ce sens donc c'est décision décision suspensive mu doon Sénégalais euh, vu que euh, décision de juge donc exécuter euh, à la lettre alors manikonak ni a ba nous espace politique bi alors manikon aussi li nga que qui sa sortie bi nga euh, euh, les avocats de l'État Amnenko, les avocats d'Ousmane Sonko Amnenko, les avocats de l'État d'Adi di riposté d'Adi di tontu euh, tontu yi tam tontu Nenko peut-être su yembee rek du côté de la régie par rapport réponse bi nga xam ni itam ko si que modi les avocats de l'État Manikon met maître Juan Branco ak ki nga xam que modi maître Clédor ñoom Tam ñi ngi daal di rejeté di daal di li récemment fa nga xam que DGE jëm si mais mais laata loolu dama leen daal di leen di tëttal balaa ñoo ñëw si lecture li nga xam nekk moo communiqué bi nga xam nekk moo état bu Sénégal da daal leen tëttal sans plus tarder li nga xam nekk moo di bu mandataire bu ki nga xam nekk moo Ayib Daffé dem fa xam ni itam mooy zone DGE ak dirut xam ni itam am na ko mu koy dem seetaan daal di ñëwaat léegi léegi si plateau bi xool moom itam ginnaaw ba nga ko daal di wëññee fa nga xam ni itam mooy genre déjà cadre la si daal di yëkki donc Ousmane Sonko mooy seen problème ce qui veut dire que ñoom lu ñu bëgg à travers à la DG lu muy def nii dilatoire la ñoo ngi jéem a gagné temps di jéem a hmm. euh, naxanteeg ñun pour am temps peut-être pour pour leen permettre ñu utaat beneen pexe parce que gis nañ ni pexe boobu ñu utiliser woon muy radiation sur les listes électorales boobu pexe boobu naxasaay na

Non, au niveau international, déjà déposé le euh, recours au niveau de la Cour de justice de la CDAO. Donc, nous avons des amis du Sénégal, que ce soit euh, les, pays étrangers, nous avons une relation diplomatique avec nous, que, en tout cas, nous avons l'État du Sénégal pour le ramener à la raison. Parce que l'Union européenne, nous avons intervenir, en tout cas, dans la supervision du processus électoral. Nous avons déjà, nous avons

Euh, L'État tax ñoo daal di war mëna li nga amal recours avocat de l'État yi ñoom ñoo daal di xaatim bi nga donc daal ñu koy euh, pour un communiqué de presse daté de ce jour 20 euh, octobre 2023 le directeur général des élections monsieur Tanor Thiendella Fall a justifié son refus de délivrer des fiches de parrainage à Ousmane Sonko motif il n'y a pas encore de décision définitive l'État

tribunal bu essence instance bu Ziguinchor ñu daal nga appliqué ba nu mu gën a si ñëpp waaye itam ba si nga xam nekk moo di communiqué bi nga xam ne itam euh, moo fa daal di mu ni fu mu toll les avocats de l'État du Sénégal bëgg nañ déposer li nga recours donc faa recours bi daal di war a mën a génn di jox Ousmane Sonko nga xam nekk alors waaye itam ba léegi si euh, collectif li nga xam nekk les avocats de l'État du Sénégal dal daal di ni la défense d'Ousmane Sonko rappelle que le directeur général des élections a fait éconnuire par deux fois le mandataire euh, du CIE Ousmane Sonko et Lucie, euh, sans même accepter de recevoir euh, signification de la décision à ce jour Manikon ni mm, ñi ni ki le mandataire Ousmane Sonko di ki nga xam modi Ayib ak UC bi de leen daal di wàññi diirub li nga xam fan direction générale des élections te ñoom exactement tax donc li n'a les avocats de l'État ñu ngi dal bu baax baax ci kaw ki nga xam ne euh, moo di euh, justement

ñu koy daal di gis si nguur ki nga xam nekk moo di le président Macky Sall donc euh, communiqué boobu nag le euh, ki nga xam nekk euh, moo di les avocats de l'état daal di xaatim waaye itam benn communiqué comme bii ngeen di gis écran bi nii mooy les communiqué le communiqué bi nga xam ni itam maître Wane ñu bind nañ ko ak ñoom maître Clédor di daal di ñaawlu bu baax a baax le fait que jamono ji li nga xam nekk moo di AG DGE mu daal di gànkal yooyu di li nga xam nekk moo di fiche à Ousmane Sonko ñoom ñu daal di jàpp ne du woon prérogative li nga xam nekk moo di DGE pour mu daal di def lu nu mel donc mi ngi si li nga xam ne

jëm si li nga xam que modi la défense Ousmane Sonko bi nga xam ni itam moo daal dal bu baax baax baax ci communiqué bi nga xam ni itam démb li nga xam que modi la direction générale des élections bind nañ ko jëmale si ki nga xam que modi Ousmane Sonko ndax tey jàpp ni itam jaay doole la et que euh, ki nga xam que modi DG amul prérogative ni la compétence way itam ni li nga xam que euh, modi justement euh, les bases requises peut-être pour mu dal di war mëna gankal Ousmane Sonko bobu di li nga xam que modi fiche alors comme ki noonu ki nga doon seetaan léegi di ki nga xam que modi Ayib Daffé